indépendance mu feet bu am solo parce que si lan moom suñu bopp su ko defee nag ñi nga xamante ni ñoo xeexoon ba ñu mën a agsi fii tey dañ leen di ko bés bi ñu leen di sargal lan ñu gën a gën leen xam si turu ancien combattant loo tax dañ leen di gën a wan suñu fierté di leen gën a renouveler suñu reconnaissance donc occasion la également pour ñu sargal leen si nin taxawee si seen taxawaay si réew mi ak bitim réew mu nekk taxawaay bu rafet ba nga xamante ni bitim réew Sénégal ñëpp ko naw ñëpp ko respecté